jaar nañ leen ñu ñuy suivre 4appuis TV di leen jaajëfal baax ci seetaan bi nga ñuy seetaan partout dans le monde France États-Unis Espagne Maroc Gambie Italie yëpp ñëpp di la nuyu bu baax di leen ziar tey nag ñu ngi fii unité 19 certificat fi Batika ginnaaw bi nga xamante ni combat bi waroon dox ci diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 bëri nañ combat bi ba pare ku nekk gis na combat bi demee moom nag ñëwoon fii tey seetsi ko fas yéene waxtaan ak moom mu joxe ñu xalaatam ci ñu bi demee eh, ngi lay fay ñu sant yàlla julli Seydina Mohamed sant suñuy waajur di ñaan fa mu tëdd yàlla xare ko àjjana ak mboolem ku mu fa fekk. boo gisee dugg dugg si mbër waaw dugg si bi moom ñëpp kontaan nañu moom dugg si mbër moom am de di nuyu ñëpp ñu fi nekk daal mais dugg si bi moom stade. ñëpp kontaan nañu moom ñëpp ñaari mbër yi ñëpp kontaan nañu ku xool ëmma kontaan ku xool ku dal dëggee de kontaan ndax ndax ñëpp seen dugg si dafa rafet. seen dugg ci moom rafet na moom àddina bi yëpp wax nañ ko seen dugg dafa rafet waaw. waaw touche yi neex na. waaw bàkku bi neex na waaw lépp waaw touche yi moom fenn ñëpp fenn fecc neex na moom waaw vraiment ñoom ñëpp seen fecc moom neex na waaw ñëpp fenn fecc neex na. ci combat bi combat am seen kii Modou Anta Diène waaw Modou Anta Diène Kaïré waaw ni ma la ko waxee woon rek. Mhm. waaw moom moom combat bi ndax bu bu Modou Anta taxawee rek ah, làmb ji day gaaw. waaw loolu moom dama la waxoon bu taxee rek làmb ji day gaaw ndax ñun làmb dañ koo xam ndax ba ñuy xale lañ doon bëri. boo dangay ngay gis ay mag sax yàgg ci làmb di ci wax loo xam mais lool du làmb ñun dañu xam bëre xam li ndax boo dee xoolee Modou Anta day ñëw jën da koy attaque te Modou Anta bu taxawee rek làmb ji day gaaw mais Modou Anta bu doon déplacé rek làmb ji mën na fa fanaane mën na fa fanaan quoi waaw di làmb bu neex daal am de di ñaanal Modou Anta moom it moo entraîné jiwaat làmb noon la waaw jën kay rek di mbër xale boo xamante ne saan ko am expérience ci làmb man dama koo xam am ginnaaw am jàppale am déet waaw am ginnaaw am jàppale ndax pap si moom ci papaam la papaam moo am moo baax moo am yar am déet yéen a ñëpp jàmm waaw di ko ñaanal naal na ko victoire bi jig waaw moo anta di ko ñaan yàlla bu amatee combat mu daan ñoom ne vraiment ñëpp ñëpp rafetlu seen bëri nañu combat bu neex taxaw nañu dëggal nañu seen bopp xeex nañu bëri nañu vraiment moom yàlla këla yàlla def ku kii jël ndam le ki si def xaaraat déwén suñu borom may ko ndam waaw estimé ko noo gisee seen état physique. ñoom ñaan ñëpp indi nañu état ñoom ñaan ñëpp indi nañu état te indi nañu état am déet indi nañu supporter taxaw nañu bëre jaay nañu seen combat loolu mooy mbër mbër boo bëree tafta nga taxaw doo taxaw taxaw kii taxaw ngeen xeex ñëpp ay kontaan làmb soog kenn ku am ku daan am déet waaw fekk am ku daan ñëpp daal rafetlu nañu seen combat bi nuñ ko defee ñoom ñaan ndax làmb moo mel noonu foog am ku daan waaw waaw di combat boo xamante ni daal rafetlu nañ ko ñoom ñëpp waaw. ñu ci combat bu mag bi seen tuus bi ñu tuusee pare la nga gis seen gis gis seen tuus. waaw ba ñu tuusee ba pare seen tuus waaw rafet na rafet boo xamante ni waaw ñoom ñëpp daal ñëpp kontaan moom ndax tuus nañ tuus bu neex ci yoo xam ne la dëgg am déet ama seen na ñëpp daal kontaan nañu ndax indi nañu forme daal indi nañu forme ci ci combat moom vraiment indi nañu forme ndax ñëpp moom am déet mystique yi ñëw na gàllaaj yi ñëw na waaw loolu moom ñëpp a ko rafetlu moom ñëpp a ko waaw ñëpp a ko moom di combat boo xam ni seen tous moom neex na lépp moom seen dugg si rafet na lépp rafet si na waaw. léegi ñu ci combat bi. waaw combat bi ah, gis ñëpp gis nañ demee par avertissement la la la jeexee. dëgg la dëgg combat bi noo koy jàngatee. waaw combat bi nu ma koy jàngatee waaw ñëpp foogu dafa doon làmb boo xamante ni bëri nañu bëri boo xamante ni mais comme gars bëri bi bëri bi ñu nit ñi doon séntu gisuñu ko ci bëri mbëri mi bëri bi ñu doon nit ñi séntu gisuñu ko ndax Lac de ñëw na Eumeu seen taxaw nañu mais ba ñu siflee ci boppam xëy na ñi ngi ñi ngi def ñoom ñaar déplacement Lac de Guiers mi ngi gëdd Eumeu Sène mi ngi taxaw waaw ndax kenn annulé mais combat bi waroon na gën a neex noonu quoi mais bëre bi ñu bëre moom moom bëre boobu moom kiiwul moom ndax bëre boobu kenn kiiwul ndax Lac de xale la Eumeu seen mag la tey moom tey lag moo waroon na ñëw ni comme kii dafa ma daanoo xaaral ma jëm koo am de attaqué ko jàpp ko bëre loolu mooy làmb làmb boo xàccee da nga war a jël suuf mais boo fa ne ay di simulation di dóor ay loxo bàyyi bi loolu loolu loolu loolu loolu làmb boobu ñun ñi supporters yi daal kenn kontaanu moom man mii seetaan sax xam naa ni lu ma bëgg bëri dama xam ni ñoom daal bëri wuñ fa bëri boo xamante ni neex na nit ñi quoi ndax loolu du bëri bëri dina am songo dina am jàppante dina am suqar bi dina am lépp mais kenn ñoom ñaan ñëpp kenn jëlul jëlul waaw mi ngi noonu jëreen jëlul risque pour jéem a daan ki ci am de kii taxaw na Lac de Guiers léeg mu xëpp ko xaw a taxaw def déplacement ma bu taxawee mu wàccewaat garde bi am de du làmb boo xam kenn kiiwul daal combat bi moom vraiment niñ ko séntu gisuñu ko ci moom waaw nuñ ko séntu moom gisuñu ko ci moom billaahi wallaahi na nga waxee ci seen feesu fees yi waaw di nga bëri di nga xeex di nga daanu ak ak ama seen nawe waaw Eumeu Sène waalo bañ na xawma affaire yooyu est-ce que lañ waxoon ci fen face bi ñëw dëggal nañ ko ci combat bi non kenn dëggalu moom vraiment wax dan wax dëgg ca moom waaw ku bëgg a dëgg moom combat bi vraiment euh, na gën a neex noonu combat bi waroon na gën a neex noonu ndax Eumeu it mu bëree ni damay ñëw taxaw Eumeu Sène bëree xam ne moo ko daanoon ñu nil bennoon bu ñëwee te xam ne moo doo koo daanoon day du mën a jël risque de trop quoi comme dafa daanoon lakk lak moo jógee ci victoire moo war a ñëw tey teg ci tànk xar tànk ci yam attaqué ko bu mu ko may fu mu yo yekkee nakam am den mi ngi mais bu bàyyee noonu combat bi kii après neexul combat bi daal kiiwul quoi mais kiiwul moom si lag moom moo waroon a te moo gën a nekk xale waaw Lac moo gën a nekk xale ndax Eumeu Sène tey boo dee xool ay moroom ñoom yooyu noonu ñu moo ñu mag mais Lac moo gën a nekk xale moo ko waroon a ñëw tey attaqué ko am den comme nit ñi kii def Modou Anta Diène Kaïré dafa ñëw ni Modou Anta maa ko ma moom moo ma mag te damay ñëw taxaw du ma an yar attaqué ko loolu la waroon def jàpp ko bëree bëree bëree du question du dë du bëree dóor am de bëree bëree da ngay ñëw attaque jàpp ko daan ko war ne nun nga ko mën a bëree nii ñu xam ne kii mbër la mais du xeex yooyu noonu man bëgguma mbër yuy bëree noonu ñëw défense sànni gauche droite ñëw kërëb kërëb non combat bi moom vraiment kenn rafetlu ko moom billaahi wallaahi kenn rafetlu ko billaahi wallaahi taala combat bi njëkk ci saison bi waaw fi combat am de billaahi wallaahi di combat boo xamante ni moo njëkk seen waroon nañu ko gën a kii quoi mm-hmm. mais xam nga rek ñoom ñaar ñëpp dañuy dañoo bëree dañu bëree bëreewuñu mm-hmm. normal maanaam dañu bëree am lu ñu garder waaw kenn nangul fournir ba jeex mhm. lépp ñuy def du ñu nangu ñoom ñaar da ngay gis kii xëpp kii taxaw def kii ñëw am de mhm. bokkul mhm. mais arbit bi dafa xaw a juum foofu làmb ba warul jox kenn niil loo ko war a def am de mais waa ay waaw làmb ji moom niil la woon mais ay kii de ndax ëmma boobu ba ñu xëppee ëmma moom mu daw waaw nee na ëmma dafa tax gisuma ëmma foofu daw loolu arbitre bi dafa juum foofu mm-hmm. arbitre yi ñoom ñooy yàq làmb yoolu combat boobu du question lii la man faralu ëmma seen faralu ma Lac de Guiers wax mm-hmm. am de bi ñoom ñaar ñëpp amul woon a jël foofu arbitre bi jox foofu avertissement mm-hmm. arbitre yi dañuy def lu leen neex waroon ko moo tax seen ñu dàqoon arbitre yooyu noonu ndax arbitre da ngay am yoo xam doo ko ci mais dawul dawul dañ ko waroon a yëkkati ñoom ñaar ñëpp seen loxo ñu ñun nit ñi dem mais amul droit yëkkati loxo Lac de Guiers ni moo ko daan foofu kenn daanul niil la waaw lamb bi moom kenn daanu te CNG bu ko xoolaatee ba xoolaat dina ko génn def ko niil man maa la wax loolu man dëgg la non dëgg la niil la lu combat boobu niil la combat boobu niil la am de combat boobu moom niil la am de lii kiiwul quoi am de lii boo dee xool sax xam nga combat yi am de ay xale yi ah waroon nañu gën a neex quoi am de mais lëmbër boo ñëwee fay ko ay millions am de dañu war a ñëw teg seen bakkan am de bëre bëre bu neex ci boppam ku ci daanul barke alxuraan tey bu ëmma seen bu daanul soo mu amaat combat bu mag la dëgër bu bu daanoon mu amaat combat bu mag ndax ñun ñee du combat nit ñee wax tant que yaa ngi bëre bëgg li nga nit ñi bëgg la am nga supporter yooyu du ci dara bokkul ma mënoo koo fee teg nit ñi tegle woon ay ñeenti defet juróomi defet fekkee ñoo nekkaat ci kaw asamaa loolu am de làmb dafa am noo xamante ni boo ci duggee rek am nit ñi lay xool supporter yëpp am de man ba ma daan bëre gis nga samay làmb man du ma an yet sama combat lu mu métti métti duma arrière damay taxaw nga daan ma la nga dem nga dem ñibbi am déet mais yooyu mooy lam nit ñi dañu lay bëgg ñëpp bëgg la tëgg ay ko am déet mi ngi noonu mais tey ak journaliste yu ndaw yi nga xam ne comme yéen ñi ñu tere leen ci biir stade bi loolu loolu loolu du làmb du ci développé ñoom loolu làmb mënu ci développé dañu leen a waroon a bàyyi ngeen dugg ndax yéen yéen askan bi yom ñëpp am déet moo tax làmb mënul ñii dañuy jaar fee ñii jaar fee ñii jaar loolu baaxul ndax yéen da ngeen di yow di yee askan bi di jàppale askan bi boo gisee dëkk bi lépp normal pour yéen di ngeen ci bokk am de mais ñëw tànn ñaar yóbbu ko yi yëf ñu bàyyi leen loolu kenn rafetlu ko loolu kenn rafetlu ko ba déggoo loolu kenn rafetlu ko làmb dama bëgg ñëpp bu ñu amee ñëpp mànkoo jaaykatu ndox bi jariñ ci jaaykatu gerte bi jariñ ci jaaykatu chandise bi jariñ ci yéen yéen jariñ ci loolu mooy làmb am de loolu mooy làmb boo gisee sax bëgguma promoteur yu mag yooyu ba ba ma demoon ba mer ni nañu retraité ñoom ñëpp lii mooy tax sama xol day métti am de ndax làmb ñu waruñu fa taxaw ñoom ñëpp tey pas yooyu ñu teg ci yooyu yëpp dañu war a retraité dem jaamu ji yàlla am de ñoom ñëpp taxaw ne foofu de ay mag lañu am de ñu war a retraité dem jaamu ji yàlla am de yooyu ñu def amatul benn njariñ ay ñoom Gaston Mbengue promoteur yu mag yëpp dëgg la ak Aziz Ndiaye bàyyi na am de te xale bu tuuti la yeneen xale jox leen làmb ji man chaque jour lool laa leen wax ak ñi ne ci plateau yi pas yooyu noonu yooyu yëpp dañu war a retraité ji am de dem seen kër jàkka ja chaque jour ma wax ko am de mu ngi noonu làmb làmb mooy loolu mais boo ci nekkee xale ku def ni tere naa loolu baaxu après ñu bëgg defar làmb ah après loolu dafay metti loolu dafay metti quoi loolu dafay metti man bëgguma loolu man chaque jour dama bëgg nit tegu ci charia am de dama bëgg nit tegu ci charia am de Lac de mbër la Eumeu Sène mbër la mais tey combat nun nit ñi nuñ ko jëlee woon gis ko ci woon loolu làmb nag noonu la waaw làmb noonu la léeg-léeg nga yaakaar loo xam ne ñoo si dax nga ñëw du ñu xeex am de nga ñëw du ñu xeex te ñëpp tegoon nañu làmb ji dafay neex waaw ñëpp waaw mi ngi noonu yi non dëgg li ma waxoon tey jii billaay wala ñëpp tegoon nañ tey làmb ji dafay neex tey Eumeu tey bu taxaw na la dëgg taxaw attaqué woo am boo ko waroon attaqué gëdd mu daw jàpp ñu songoo bëri am déet loolu mooy làmb loolu mooy làmb mais ñoom ñaar bu buñ ñee kenn buggu ci song sa morom loolu loolu rafetul quoi loolu moo tax làmb ji niil kenn nangul songu sa moroom kenn nangul song sa morom ñëpp dañuy ñëw di di sotti di la jéem a wàññi xëpp la nga xaw pour juum na loolu nit bu nu ci juum kii jël gàdd kii jël garde am waaw mi ngi kenn loolu pour pour di xaar kenn juum nga daan ko loolu du làmb foog nga tante comme nga fan tey boo xoolee bëree franc bi mm-hmm. ak kii nu mu toti waaye mm-hmm. mbër bi général Malika waaw combat général Malika ponkal la am na doole mm-hmm. am de franc te it ponkal la am na doole te boo dee xool général Malika moo ëpp franc mais franc da koo daw ñuux xam de du naq ko dugg moom génn moom foog nga tante ak na mu daanee woon Firi Ndiaye 2 noonu mooy làmb dëgg jàppante am de te ñoom ne moo gën mais après kenn nangu ci jàppante loolu du làmb loolu bu doon loolu ñëpp dem jàngi karaté wala dem jàng rafu di bëree bëree noonu mais nit boo ñëwee afghan ñu fay la ay milliards yàlla dér la nga doon ba di fay ay ay millions ci làmb ñun nga xam ne kenn dàqu ñoon bëri yàlla ñëw ak ñu def ñu jeune wala dara ñu toog muñ xam ni yàlla mooy génn nit ñëpp dañ ciy kontaan ba ma sañoon tey ñoom ñëpp doon roi des arènes ñoom la déggee fay ko ay milliards ci làmb mais bu ñu leen fayee xaalis bu baax ak ñoom ëma ñëpp dañu war a taxaw bëri ko ci normal amateurs yi kii am de ñëpp kontaan ci woppam ak ak ñu may bëgg a wax te mooy ñooñu ne ci télé bi nu mu tëddee nu télé bi ko doon wone mm-hmm. waaw waaw mais ñooñ seen reporté bi ñu reporté loolu rafetul mm-hmm. loolu ay kii ëmma ngi nii def na li wala kii mënu ñooñ ñoom mënuñu reporté loolu loolu rafetul ci làmb mm-hmm. mbër muy bëri moo xam lu muy def ñoom xamuñu dara ci làmb man bëgguma ñooñu di wax foofu noonu ay kii bu leen neexee tey ñu invité jàngkat yi bu subaa ñu ñëw nit da ngay far fen toog da nga naan Serigne Fallou laa gëm wala yonent wala Baye Niass maam limaam la yooyu bugguma ko ay mbër mi ni bërewul ak lii di xaf ay mbër mi yooyu rafetul am di loolu rafetul ci woppam loolu loolu man man bugguma loolu ci boppam nit da nga koy bàyyi mu bëri mais mënoo ñëw di ko for si magub loolu rafetul quoi buñ mbër mi tourné woon wax la dara wala mu kii bi loolu man bugguma loolu chaque jour damay bëgg nit yar ak teggin comportement loolu laa bëgg waaw lool laa bëgg bu ñu ko defee ñëpp a koy rafet waaw am na solo hmm. jaayef champion jërëjëf xaadim jërëjëf ñu ngi lay sant di la fii ñëw beeg lépp daal am de heure bu ñu ngeen soxlaa daal ñu ngi fi jërëjëf xaadim jërëjëf jaajëf gaay